أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه والقائل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الخائل ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا الله على ما هداهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد وله أسلم وبشر المخبتين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وأصحابه أجمعين القائل ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها والرضوان على غوثنا وغنيمتنا وغيثنا الشيخ أحمد الخديم القائل سبب غيبتي أن الله أراد أن أنال منه جاهه وأن أكون شارعا لقومي وأن أكون خادما في دمي الخائل وأدخل الإله في قلوب من تسببوا في نقله ذاك الزمن إخراجه إلى البلاد النائية ونال فيها فوق سماء سريع إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki M Media Group Nourou Darayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen bal xaq di ñaan ngeen bal ñu ak di ñaan yàlla subhaanahu wa taala nungu ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy rëcc rëcc ñu di leen ziyaare waat nag di leen ndokkeel ci weeru sell wu barkeel wi ñu duggati muy safar ñu di ko tudde safarul xayri nga xam ne dafa bokk ci weer yi nga xam ne yii dafa gën a ràññeeku ci weer yi ñeel mboolem jullit yëpp waaye ñeel mboolem àdduna ba rek waaye rawatina ñun ñi nga xam ne ñi cheikh yàlla subhaanahu wa taala ci yërmandeem ak xéwalam danoo xéwale boole noog suñu kilifa googu Cheikh Ahmadou Bamba te yàlla lépp li nga xam ne lii moom la ko may ci ay teraanga àdduna ak àllaaxira maanaam mu mayoon ko ko ci weer wi kon weer wi nu yàlla baaxeeti ñu fekke ko te mu doon ay xéwal yi neen ci ñun ñëw leen ci ziyaare te alxuraan moom dëppook jamono lool dëppoom yéppi xew-xew yi nga xam ne yii ak xéwal yi nga xam ne yii Seyxul Xadim dañu koy farli dañu ko wax alxuraan di wax ne dalika wa man yuazim xurumatillahi fa huwa xayrun lahu inda rabbihi yàlla dane am na ay ormo yum def yoo xam ne yi teg ko muy ay xew-xew jamono yoo xam ne yi ak jaamu yàlla la ne ne képp ku ko jàpp takk ko bàyyi ko xel di màggal orma yàlla yooyu ne ne loolu aw yu lay doon ñeel la yow jaam bi soo demee ba dajee ak sa borom daa di waxaate moom man yuazim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub daa di waxaat moom yàlla ne man yàlla de am naa ay mandarga yuñ ma mën a jaamoo ay jamono ak i xew-xew yuñ ma mën a jaamoo yoo xam ne képp koo xam ne ki yaa ngi koy bàyyi xel di ma ca jaamoo di dellu si man di ma farleku ne ne loolu maanaam dina tax ragal yàlla gi nga xam ne gi moo nekk ci sab xol maanaam di gën di dëgër di gën di yokku kon loolu bu ko alxuraan waxee ñu gis ne kon màggal gi nga xam ne gii moom la ñu yàlla defal ci weeru màgg yi nga xam ne moom la ñu dugg dafa nekk tawfiix ak xéewal yoo xam ne yii bu ñu yàlla baaxee bu boole ku mel ni xaadimu rasul ñu fekkewaat ko dañ ko ci war a sant bu baax a baax waaye jëm cee góorgóorlu bu baax a baax ci suñu kéemtalaay kàttan ci lépp loo xam ne lii ak jaamu yàlla la. nu góorgóorlu ca loola gën koo rafetal gën koo fonk gën koo jàpp te it nu xam maanaam màggal nan lañ ko war a màggale waaye nan lañ ko war a waajale ak nan lañ ko war a dunde ngir ñu baree baree bari muy lu baax seytaane dina leen ca yàqal yal nañ ci yàlla musal ci nañu koy defee ak nañu koy waaje ak nañ koy dunde kon day aajo lool nag ñu xam ne màggal moom lu am am solo la ak jaamu yàlla la ba lépp loo xam ne dañ ko koy waajale ci ay wax ak ay jëf aku nekkin loola ñu xam ko te lu di sengaan ba rek maanaam li moytu ko ngir màggal boobu yàlla mën ko ngumu mën ñu cee dimbali mën ñu cee jàppale ba na nga xam ne nii dafay dëppoog ñu ko Xaadimu Rasuul bëggee noonu lañ koy màggale su ko defee mu doon ak jaamu yàlla boo xam ne gii yàlla da koy nungu boole ñu ko ci suñ jëf yu baax yi nga xam ne yii boobu la di jëf kon weeru màggal yi ci bésu màggal bi noonu bu ñuy jàng alxuraan rek yàlla it dafay wax ne wali kulli ummatin jaana man sakan li yadkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil anam fa ilahukum ilahun wahidun fa lahu aslimu wa bashiril muxbitin yàlla da ne man yàlla day xeet wu mu mën a doon defal naa ko aw xeetu jaamu yi maanaam lu ñu may jaamoo maanaam yàlla dana xeet wu nekk defal naa ko lu ñu may jaamoo ngir ñoom ñooñu di xeet wa jaamu googee ma leen defal maanaam ñu mën ma cay fàttaliku di ma ca jaamu bu ko defee mu doon loo xam ne lii noonu laa ko bëggee comme ni wala kulli ummatin jaana man sakan li yazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am dégg nga li muy tudd fii nag muy bahimatul anam muy comme màggal ñun ni ñu ko xamee nga xam ne jaamu yàlla goo xam ne gii dafa bokk ca la ca gën a ràññeeku muy ay bernde mu tàmbalee ci jur goo nga xam ne gii moom la ñu charia daganal ngir ñu mën koy jëfandikoo di ko lekk yàlla tudd ko ci aay bi ginnaaw bi mu ne xeet wu nekk maanaam defal naa ko ak jaamu yàlla mu daal di cay tudd bahimatul anam te mooy jur gi nga xam ne gii charia daganal la ko ngir ñu mën koo jëfandikoo mu dudd ko ci aay boobu kon gis nga màggal ni ko sëriñ bi tëral nga xam ne la ca gën a ràññeeku mooy ay bernde ci wàllu xeeti jur googu gis nga ko kon day daal di dëppook aay bi lool ñu xam ne moom bernde itam lu ama am solo la ci màggal gi ñu gën koo bàyyi xel bu baax ndax ne ne li yazkurullaha ala ma razaqahum li yashkurullaha ala ma razaqahum min bahimatil anam ngir ñi mën a sant yàlla ngir li mu leen li ma leen xiwale ci ak jur goo xam ne gi dañ koy rey di ko jëfandikoo di ko lekk ngeen mën ma cay farle ko xam ne maa leen ko baax rek waaye ay mbindeef lañu comme man ma may leen nag ngeen mën koo jëfandikoo ci sama coobare ak samay demande ak sama xéwal yu ma leen di defal waaye tam mbokk yi Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne na ngeen xam ne yàlla jamono ni mu ko bindee jamono yi am na ay jamono yoo xam ne day ràññeeku lool saa su nekk yàlla mi ngi wàcc xéwal sax waaye ne am na ay jamono yoo xam ne maanaam damay gën a wàcc xéwal yi maanaam xéwal yi day gën a bari day gën a ràññeeku di gën a xéwale ne ne muy tombe xew-xew yu mel loolu ne ne yooyu kon di leen ko bàyyi xel di ko taatal maanaam di taatal sama xéwal yi nga xam ne day gën a bari ci yenn ti jamono yi ak yenn ti béréb yi ak ngir yenn jëmb yi. ndax xewal moom mi ngi wàcc saa su ne waaye mi ngi mel ni ab taw rek bu dem nawe la gis nga taw yi muy taw maanaam day wuute lool yii day bari lool yii néew lool yii di wiisal rek waaye nee nañ sama xewal yi noonu la demee day ëppaate te fa muy gën a ëppaate mooy ci ay yennati jamono yoo xam ni day am day ñëw kon nee na bu ñëwatee xew-xew yooyu na ngeen gën a taatan sama xewal yooyu ci maanaam gën a farlu ci jaamu yàlla ak gën a nekk ci lépp loo xam ne lii lu ma neex la waaw kon loolu mën nañ te jàpp ci kon ab joxoñ la ci màggal gi day bokk ci jamono yi nga xam ne yii yu ràññeeku la ci xéwal yooyu nga xam ne yàlla da koy yokk di ko wàcce ci kaw suuf di dina ko wàcceel ñun jaam ñi kon ñu góorgóorlu ci am ngir taatan xéwal yooyu ci màggal gi ak yu weeru màggal gi ak jamono yu mën a doon te loola mooy rek lépp lu jaamu yàlla nu doon ko def rek ñu gën koo sellal gën koo jaarale ca yoon woo xam ne bii ca la war a jaar xaadim rasul nit jàngal nanu wax nanu xamal nanu màggal gi moom ci njàngale mu leer a leer ci ne maanaam ci ndigalal yàlla la jógee waaye tamit loolu ko ko yàlla maye muy ndigalam ay xiiwal la yoo xam ni da ko defal xaadimu rasul defal ko képp koo xam ne kii topp nga ko di ko roy ci ni mu doon roy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wax ñu kañ la màggal gi tàmbali waaye itam wax lu lan mooy sababas màggal gi mu daal di ne xarajtu yowma sabti thamina ashara li xidmatil muxtaari fii chehri saba sabar loolu mooy taarixu màggal gi maanaam xaadimu rasul dafa wax ne génn naa bisab gaawu tombeeg fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar wi ñu nekk naa nag li tax ma génn mooy liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moom nga xam ne bii képp ku liggéey képp ku ko liggéeyal maanaam yàlla dina la fay loo xam ne lii maanaam day bari doon xéwal yoo xam ne dina baree baree bari ba yow rek doo ko mën a jëfandikoo faaw day tasaaroo ci mbindeef yi ñum ñëpp ñu di ko mbindeef yëpp di ca jariñu tax màggal gi loolu la ci yàlla defal Cheikhul Xadim muy may na ko ci ay xewal yoo xam ne yi bii ii fekk àddunaa ngi dem mbindeef yi maanaam ñi ko nungul ak ñi ko nungulul ñëpp sax dañ ciy jariñu di ci xewlu ba keroog bés bi ci ba jot te su boobaa la ko fa yàllay dencal ci xewal maanaam muy gën a bari lool li nga xam ne lii moo feeñ fii ci àdduna ñu gis ko mu doon ay xewal kon foofu si Xaadimu Rasul wax na fi kañ la màggal gi ak it lan mooy sabab sax kañ la màggal gi mooy bisab gaaw boobu mu génnan di dem ca géej di dem ca géej ga ànd ak noonu ya maanaam bés boobu mooy màggal gi mu ngi tombe ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar wi lan mooy sabab sax mooy dafa dem ngir doon liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daa di waxaat ne sababu xaybati ya anna allaha arada an anala min hujjaha wa an akuna shafian lil xami wa an akuna xaadiman fi dami daa di waxaat ne li waral ma génn sama génn bii muy tukki bii muy tukki géej gi ne ne ñett waral na ko ñett la maanaam ñett ko sabab mooy anna allaha arada an anala min hujjaha ya ne ne yàlla dafa namm ci coobareem ak xiwalam ma am ci moom ay daraja yu ko yoo xam ne yu dina néew lool ñoo xam ne ñu am nañu daraja ju toll loolu waan akuna shafi'an li xawmi bokk na ci itam ne ne ci sababas génn gi muy dem ci géej gi muy képp koo xam ne ki yaakaar nga ma topp ma nungul ma di ma roy ci li li may ni may roy Seydina Muhammad maanaam su bis penc ba ma nekk koo xam ne kii maa lay ràmmu waaye bokk na ca sabab itam waan akuna xaadiman fi dami ne ne bokk na ci itam man nekk koo xam ne kii maay doon jëwriñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf fekk àddunaa ngi dem ci su ngeen ma gisee ak su ngeen ma gisut daa de waxaat ne wa adxalal ilahu fi xulubi man tasababu fi naqlihi daaka zaman ixraajihu ilal biladi naaiya wa naala fiha fawqa samay saria mu waxaat ci yenn te xewal yoo xam ne yii yàlla may na ko ko ci tukkib géej gi mu ne wa adxalal ilahu fi xulubi man tasababu fi naqlihi daaka zaman yàlla moo tàbbal ci xol yi ñi nga xam ne ñi sabab nañu di ko génnee te jamono jooju nga xam ne ji ñu ngi koy fexe di ko bëgg a génnee mu ne nañ ko génnee yóbbu ko ci réew yi nga xam ne yi sori la su ko defee li nga xam ne lii mooy woote muy di liggéeyal Seydina Muhammad di xëcc da doomu aadama yi ak mbindeef yi di leen jëme ci yàlla ngir ñu mën a jaamu yàlla bu boobaa su demee ci réew yu sori yooyu dootu ko mën waaye na ne biñ ko defee wan naa la fii fawqa samay saariya nee na ma daal di ci am loo xam ne la kawe na dégg ak saariya ga dégg ak saariya ga nag xam naa bu ñu ci mbokk yi mën a gën a leeral ngir émission yi fatwa bi la dama ci def tamhid bi rek di leen ko ziare di ci junju point bu mu ci nekk rek dama cee junju rek waaye bu mu ci doon rek ma wax ko fii rek mën nañ cee waxtaan waxtaan woo xam ne bii maanaam du jeex mu ñu ko jiyal kon loolu ñoo leen koy ziare di ñaan yàlla si na di ñaan yàlla doole dafay tawfeex bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon fatwa bi tey laaj yi ñu ci am mi ngi jóge ci soxna Fatma Ndiaye ñu ngi koy ziar di ko nokkee bu baax ci weeru sell yi di ko ñaan mu fasaale ñu mu fasaale ñu bu baax a baax soxla si soxla si day waaj maa hukmu zawaajil muslim minal masiihiyati daa am mbokk moo xam ne daal maanaam ab julit la ku góor la am jullit la waaye ne ne jabaram maanaam soxnaam dafa nekk ab chrétien muy laaj ndax loolu moom sëy boobu nan lan moo def atteem ak it maanaam nan la ñu war a mën a dundee ñoom ñaar ñooñu kii nekk ab jullit kii nekk ab chrétien ñuy nekk di sëy dañ ko naan falmasihiyatu falmasihiyatu falmasihiyatu ma kufriha qad abaaha allahu azawaja minha waaw soxna si loolu lu lislaam may la lislaam daganal la maanaam lislaam may na jullit bu góor mu takk chrétien bu jigéen waaw loolu te loolu mu weddi itam maanaam nanguwut islaam du tere maanaam lislaam daganal la ab jullit bu góor man koo takk moom soxna soosu loolu lay wax ne fa yajuusu lil muslimi azzawaaju min alkitaabiyati yahudiyatan aw nasraaniyatan ida kaanat afifatan muhsinatan ne na kon may nañu ab jullit mu takk ñi nga xam ne ci jigéen ñi nga xam ne dañoo bokk ci borom téere yi borom téere yi nag mooy ñi nga xam ne ni dañoo wàcceen ci ñoom ay téere ay yonent ñëwoon ci ñoom lu mel ni al yahudiya mu ñi nga xam ne ay yahud lañu ak ñi nga xam ne ay nasraan lañu ne ne ñooñu seen jigéen ñooñu may nañu jullit maanaam mu mën caa takk jabar waaye nag day nekk ci shartab jigéen googu ngay takk mu nekk ab chrétien wala mu nekk ab yahud yahudiya mu nekk koo xam ne kii du njaaloo waaye nekk koo xam ne kii maanaam day téye boppam ci boo ko takkee maanaam bu fekkee ne dafa nekkan fa njaaloo mu bàyyi njaaloo googu doo du ko def kon mbokk moo xam ne mii dafa takk jabar joo xam ne ji ab chrétien la loolu charia maye na ko waaye nag na wax ak moom ba mu bu fekkee ne dafa nekkan kuy njaaloo mu bàyyi njaaloo googu wa xurrima zalika alal muslimati waaye nag li ñuy bañ mooy jullit bu jigéen maanaam chrétien bu góor takk ko jullit bu jigéen moom charia day bañ day tere chrétien bu góor takk ko li ñuy tegtaloo ci alxuraan nag ci ne jullit bu góor mën naa takk chrétien bu jigéen mooy yàlla dafa wax ne al yawma uxilla lakum at-tayibaatu wa taamu alladina utul kitaaba xillun lakum wa taamukum xillun lahum wal muxsanaatu min al muminaati wal muxsanaatu min allazina utul kitaab min xablikum yàlla dafay wax ne comme li soxna si doon waxal ne moom ne day góor gi dafa takk ab chrétien te soxna si moom moo koy toggal ñuy bokk di lekk kon togg googu ak lekk googu maanaam nan la fay demee ñu koy wax ne ko soxna si kooku nga xam ne ki ab chrétien la doon jabari jullit boobu maanaam lu mu ko toggal mu doon togg goo xam ne gi gu sharia daganal la ab jullit war koo lekk rek maanaam mënees na koo lekk ndax dane fii muy wax ci aay bi ne ne wa taamu lazina utul kitaaba xillun lakum wa taamukum xillun lahum yàlla dane ñi nga xam ne ñi ay chrétien lañu wala mu ñu doon ay yahud bu ñu toggee ñamu jullit ab jullit mën na caa lekk waaye ñoom itam ñun jullit ñi bu ñu toggee aw ñam ñoom itam daganal nañ leen ko ñu mën koo lekk kon jabar jooju doon chrétien la muy toggal jëkkëram jooju di jullit na fexe mu doon la xam ne lu sharia daganal la mu bañ a doon lu araam mu dene lu dagal la rek maanaam dina ko mën a lekk waaye tamit li ñuy tegtaloo ci ne ab jullit bu góor mën a takk ab chrétien mooy yàlla na ne daganal na al mu'minaat al muhsanaat min al mu'minaat jigéen ñi nga xam ne ñi dañoo sangewu lu ñu njaaloo yàlla may nañu nu takk leen wal muxsanaatu mina lazina utul kitaab min xablikum waaye tam ñi nga xam ne ay chrétien lañu wala ay yahud lañu su fekkee ne du ñu njaaloo rek alxuraan ne ne may naa leen yéen jullit yi ngeen mën caa takk. beneen laajam bi ci toppaat mooy xukmu xukmu imtinaa'i zawjati anil jimaa beneen bi ne ne dafa am góor goo xam ne gi daal dafa nekk ak soxnaam waaye soxna si da koy tere boppam. maanaam nugute sëy ak moom maanaam su waa ji bëggee tëdd ak moom ngir ñuy sëy soxna si day bañ maanaam lànk du nungoo tëdd ak moom muy laaj lan mooy atte bi dañ ko noon laa yajuuzu lil mar'ati an tamnaa zawjaha nafsaha isaa daaha lil firaash loolu soxna soosu di def muy di tere boppam borom këram su ko soxlaa loolu lu araam la loolu dañ koy tere genn jigéen wërta am jëkkër maanaam jëkkëram soxla ko te amul lenn ngànd maanaam mu koy tere boppam walaw kanat fii soxlin saaxil illaa an yakuna laha udrun ne ne soxna daal muy jabar su ko jëkkëram soxlaa ak lu mu mën a nekk rek loola da ko war a bàyyi dem ànd ak jëkkëram joojee ñu sëy sëy boobu ba pare mu doog a dellu ca loolu nga xam ne lii moom la doon def lu dut ni dafa am ngànt ngànt gi ñu koy may nag comme li fi soxna si wax nii ne moo tax moo ko koy tere loolu du ngànt yoo xam ni charia dafa ne ngàntal lu ñu war a bañee ab sëy la maanaam ànd ak sa jëkkër muy maanaam nga xam ne dana xañ na da koo neexut wala bëgg ko wala mu meroog moom yooyu yëpp du ngànt loo xam ne day tax maanaam mu mën koo tere boppam waaye ngànt gi sariya wax dal mooy soxna si bu fekkee ni day gis reegal bu boobaa am na ngànt wërta seeg jëkkëram waaye itam bu fekkee ni dafa nekk ci dereti wasin itam te setagut wërta ànd ak moom wala boog mu feebar feebar bu métti boo xam ne bii bu ànd ak jëkkëram jooju di sëy dana ca loroo maanaam mu métti ci moom lool mu mën a yokk feebar ba wala mu koy yeex a wéral su boobaa daal loolu mooy ngànt yi nga xam ne may nañ ko ko mu mën koo mu mën a bañ a ànd ak jëkkëram waaye yeneen ngànt yoo xam ne maanaam danaan mën tey sëy bi neexuma ak wala dama meroog moom yooyu moom kenn benn soxna duñ ko may maanaam mu cay bañ a sëy ak jëkkëram qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iza baatatil mar'atu muhaajiratan firaasha zawjiha laanatha almalaikatu xata tarjia wa fi riwayatin oxra xata tusbiha seyna muhammad ne ne jigéen day bu fanaanee ak jëkkëram jëkkëram ba bëgg sëy ak moom mu tere ko boppam ne ne na xam ne soxna soosu maanaam malaaka yi dañuy fanaan di ko rëbb ba kër bët di set loolu kon lu jara bàyyi xel la ci ne ci dayo boobu loolu noonu loolu la tollu maanaam ne jigéen gi day su tëddee ak jëkkëram maanaam jëkkëram soxla ko bëgg sëy ak moom mu bañ moom soxna si bañ a sëy moom na na xam ne malaaka yi ñu ngi fanaan di ko rëbb ba bët set loolu ab xadis bu wér a wér la seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ko daa di waxaat moom seydna muhammad ne walladi nafsu muhammadin bi yadihi laa tu addil maratu xaqa rabbiha xata tu addiya xaqa zawjiha kullahu xata law saalaha nafsaha wa hiya ala xatabin lam tamnaahu Seydina Muhammad mi ngi giñ ne maa ngi giñ ci yàlla mi nga xam ne mii moo yore sama bakkan ne ne jigéen mënta def àq yàlla lu dul ni da caa boole di di def àqi sëriñam boobu nga xam ne bii moom la ko yàlla booleel ne ne kon soxna si bu fekkee ni jëkkëram da koo soxla fekk sax maanaam dafa dafa ànd ak moom ñu war ci dara maanaam ci kaw teg googu maanaam foofu ñu war ci kaw mu ne ko dama fee bëgg sëy yow sax bëgg sëy ak yow ne ne su boobaa soxna si du ko sañ a tere boppam kon na lii day firndeel tegtale ne soxna si moom fu ko jëkkëram soxlaa rek ngir ñu sëy su boobaa maanaam dafa war a nungu ak lépp lum jàppan mu bàyyi ko te ànd ak sëriñam boobu ñu sëy ba sëy boobu jeex beneen xadis it waxaat daa di ne isaa daa rajulu zawjatahu li xaajatihi faltaatihi walaw kaanat ala tanuur seyna Muhammad ne ne jigéen gi de bu nekkan ca waañ wa di togg sax maanaam jëkkëram daa di ko woo ne ko dama bëgg sëy yow na daa di ub waañ wa bàyyi togg ga te dem ànd ak jëkkëram joojee mu sëy ak moom ba sëy ba sotti muy doga dellu ca togg ko nga xam ne kii moom lay togg kon mu ne fa min xaqi zawji ala zawjihi an tumakkinahu min nafsiha mata talaba minha dalik ne na bokk na ci àq yoo xam ne yii jigéen gi da ko amal jëkkëram saa bu ko jëkkëram soxlaa maanaam mu daal di dem ànd ak moom wa li haza xallun min alquran alkarim wallati taxaafuuna nushuzahum faizuhunna wahjuruhunna fi lmadaaji'i wadribuhunna alquran nag comme masala bu mel nii da cee wax muy ne ne wallati taxaafuuna nushuzahunna ne ne yéen góor ñi su ngeen nekkee ak ay soxna soxna yo maanaam bëgg leen a gàddaay maanaam nangu ñoo sëy ak yéen nee na ñett yi ngeen di jël topp ko benn par benn mooy faay zuuxul na moom na ngeen leen waar comme di leen wax alxuraan li mu wax ci lii maanaam ni ko charia araamale muy nga waar ko ci ne ko charia de moom dafa araamal ci jigéen muy tere boppam jëkkër mooy faay zuuxul na ak yu mel noonu bu boobu jëriñut maanaam taxul mu nangu wax juruhunna fil madaaji ne ne kon ngeen jëlaat beneen tomb mooy ngeen bañatee te dem ñoom ca leel ca lal ya lu yàgg a yàgg ngir bu boo boo tëddut ak moom ba mu yàgg mën naa dem ba soxla ko xam ne kat nii mu ko soxlaa te mënu koo am noonu muy mittee ci moom ak ni mu koy defee jafe-jafe moom itam bu la teree boppam noonu la fay demee bu boobu fajut loolu alxuraan ne ne wadribuhunna ne nag soo demee waar nga ko waar gi jëriñu ko dara gàddaay nga ko maanaam nu ngoo tudd ak moom calal ba loolu faju ko ne ne kon nag sharia may na la maanaam nga duma ko duma yëpp nañ ne duma yu oyof lay doon yoo xam ne yii ay duma ay dóor lay doon yoo xam ne doo ko gaañ tey du mitti mitti woo xam ne yi da koy escandé di ko sonal lool kon daal li nga xam ne lii moom la soxna si wax ne soxna soosu da koy def muy tere boppam jëkkëram daal lu araam la genn jigéen waru koo def lu dul ni dafa tege ci ngànt yoo xam ni moom la ñu wax yàlla na yàlla dogal defal taw yoo xam ne jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam